bilan bi nag mooy satisfaction totale rek parce que mën naa ne pour une première participation ñu am plus de 1000 voix am deux conseils ah, ñu demal ci sunu tur bopp lañ demee woon ah, amuñu accompagnement ak ñëpp xam nañ processus nu mu méttee et autres donc dem nañ ci dugg nañ ci génn nañ ci avec deux conseils ñun fi lañ dëkk fii lañ jaroo fi lañ màggee fi lañ def suñuy entreprise donc ñun lépp loo xamante ni day jëmale zone nord ba ci Thiès yëpp ci kanam

il y a beaucoup d'urgence donc euh, zone nord tey jii boo ko doon urgence dafa bari trop trop ba tey jii boo ko wax do xam sax tey jii fan la nit ki meuna commencer mais nag aussi gis nañ ni ñom euh, c'est des hauts cadres xam nañ li ñuy def donc euh, ñu ngi leen di ñaanal dal tay mouvement bi taxaw na juddu na am na ñaari conseil am nañu plus de 1000 voix c'est une première ñu ngi doon soga lancer je dois dire que élection et processus bi ni ñu ko démarrer 6 mois rek lañ ci lañ ci liggéey mouvement bi un an la am six mois ñu préparé ci dem élection c'est vrai que dañ demoon pour jàngi et on a appris beaucoup de choses gis nañ lu bëri xam nañ lu baax processus bi léegi suba si c'était à refaire amna lu bari lo xamanteni def nañ ko ci ay ay erreur ay manquement gëm nañ ñu mën nañu am ndam ci lu bari social moom ñun biñ koy def xalaatu ñu woon dinañ dugg ci ci champ politique bi tey dugg nañ ci dañ ci gën a au contraire dañ koy tripler mais duñ ko wàññi boo xoolee processus bi ni mu demee lépp novice lañ ci. lépp lu bees lañ diñ ci demee amul kenn koo xamante ni ànd na ak ñun euh, xam na lan mooy procédure euh, euh, électorale bi man on a dañu tar lu bëri bëri bëri bëri ci ci ci ci côté aspect aspect document administrativement dañ ci am dañ ci am blocage yu bëree bëri. aspect technique bi administrativement élec ma matière électorale ñu bëri dañu foog ni dañu foog ni dem ci nit ñi laak yooyu non non non mais processus électoral bi. dafa laaj maîtriser malheureusement ñun biñ ci dem yu bari maîtriser wuñ ko dem nañ ci ça nous a pris beaucoup de temps ba nga xamante ni dugg nañ ci dugg nañ ci vraiment ak ak beaucoup de loolu nag ça nous a beaucoup appris ah, am nañ ci tey expérience boo xamante ni si c'était à refaire temps biñ ci perdre duñ ko perdre ba nga xamante ni li ñu ñàkkloo xam nañ ko fi ñu ganeloo xam aussi xam nañ ko tey